dikkati naa ku mer xanaa bugaan gay dani le mandat yéen kaay naan maan ma nga mer kay ba gàddug bi gëm bugaan teg ca di joxoñ loxo mel ni ku naan sàll lu nga bëgg du fi amee le mandat naan maan bugaan gay dani dënn ba jóg na rax ci dolli moom gay di wax ay wax yu rëy kay l'évidence yéen kaay naan maan nee na ñaari millions yu carton yu rouge xonq curruma la ba mel ni deret moom la bugaan gay dani di gàddu fas ko yéen joxoñ kay xanaa président Macky Sall yéen kaay bi naan maan moom bugaan gay dani wax na ci présidentielle boo xam ne dañ koy kon may ma foofu maa la ko ñaan l'évidence naan maan Bougane Gueye Dany wax na ci procès Sonko Adji Sarr turbine naan kon may ma ca ma ñëw l'évidence naan kon Bougane wax na ci Serigne Saliou Gueye mi nga xam ne jàppam gi teguwul yoon turbine naan kon maa ca mën maa ca xam may ma ko l'évidence ba tey naan kon caxat-caxatee suuf sa sa géejawaay moom jiital gëm sa bopp daal dina cay wax le regard yéen kaay naan kon fii maa ca xam dara Bougane Gueye Dany nee na lu ëpp juróom ñetti téeméer la ñu fas yéene tong tong nag ko séddoo muy suñu alal joo xam ne askan wi ñun ñoo ko moom Sall ngaari di ko neexalee ay nitam ngir ñu neexal ko ñoom it ngir ñu sar xooleel ko ñetteel bi mandat mu am ko ci mim réew direct news naan maan Bougane Gueye Dany ma ngay wax ay gëm-gëmam naan dëgg la élection présidentielle day dina am ci réewum Sénégal waaye la leer ba leer mooy président Macky Sall moom du ca bokk ñun askan wi ci boppam ñoo dul nangu président Macky Sall di bokk suñuy élection tribune yéene kaay naan Bougane Gueye Dany la séq ak sans limite naan fa may dooree moom mooy xamal leen ni moom président Macky ñaari at déet bugaan ne looloo am te mooy dëgg ma ne la président Macky Sall fi mu ne bëggul amal élection yi 2024 daf ko bëgg dàq fii ak ñaari at nguufaan nag ci réew mi toog fi xoj ñu soppi charte yi nu mu ko neexee xàllal boppam yoon wi ngir mën a bokkaat talal jëm 2039 bugaan naan lii tax ma ne la dialogue bi mu bëgg ko amal ci réewum Sénégal Seydi Gassama ci 24 heures yéene kaay naan ko déet bugaan dialogue bi kay nag wares na ca mën a dem waaye lañ leen di xamal moom moo di ab loi d'amnistie buñ ko tëggal ñëpp nañ yoo xam ne ñaar ñamu soxal dong la soxal bugaan géy dani ci di bi du bi dee a respecté opposition bi ca am ñoo xam la ñu di xool seen ëllëg ci réew mi porox ndool la boo xam ne dinañ ca jaar ngir seen ëllëg ñoom waaye daf ca am ñoo xam ne dañoo radical kupp muy dagg rek lu sàll lal nag ñu daal di koy laal ne ko bëgguñu l'évidence yéen a kaay naan maan waaye yeewee ngay artu seeni ñooñ naan leen dialogue ba bëgguñu fa te ku fa dem dem tooñ nga ñu ku bokk yeewi laa ñi la bugguñu laa seen ca boobu la dialogue l'indépendant naan man dialogue ba ñeen cooy tudd diggante parti démocratique sénégalais ak taxawu sénégal la te boo moytul PDS moom daal di yolleeku ndànk yéene kaay bi naan man seen digg ak président Macky Sall daal dafa am yoo xam ne lëndëm da ca am nee ñu nag terme de référence yi xamaguñ ko ci ñeenti fan boo xam ne dina tijjeeku boobu la dialogue bugaan gay dana ci tribune naan koon déet dialogue dil l'indépendant naan koon en tout cas PDS moom day ba nee na dialogue ba ña ngi ci jëm amul feuille de route ba amul agenda wax lañ fay wax ak lañ fay def mbir mi daal di jaxasoo ca la ñuy waxtaanee te ña ngay laam-laamee ni dialogue ba sax ngir dàq élection la lii yee tax nag parti démocratique sénégalais xelam teey daal bugaan gay dana ci tribune yéen kaay naan kon bu mu yam ci teey wàccu leen te bu ngeen di wàccu na ànd ak boobu la dialogue ndax sàll nag ca la nar a jaare dàq élection présidentielle yi ci ñaar ci at duñ ko ko nangul ci mim réew ma la ba sub dialogue ba ci boppam ñaari million carton yoo xam ne dañoo xonq cur moom laay séddale askan wi ngir ñu jor ko président Macky troisième mandat du am ci mim réew gars yu sans limite naan kon waa président Bougane loo xalaat nag ci procès Sonko Adji Sarr bi Bougane Gueye dani naan lii gàcceel na suñu république waaye caxat-caxatee na xar kanamu Sénégal ci bitim réew te dootul baaxati yéen a ngi fàttaliku ba mbir ma jollee dama ne woon Ousmane Sonko wóolu naa la te waxtu woow ba ma koy wax man Bougane Gueye dani dama ne jël ab leader tuumaal ko lu toll ni wuyol boo amul preuve daal di sànku wala Bougane naan dama ne Adji Sarr ani say preuve ña nga àndal la jàppale laaj ndax nag gisuñu benn preuve boo xam ne taxal na Ousmane Sonko ci bile wuyal nga xam ne tuumaal nañu ko ko tey jii sénégalais yi gis théâtre boo xam ni nañ ko suwee baax na wala am ca gàcce doore ko ci man fukki bakkan ak juróom-ñaar bugaan géy dani ne rot ci kàcc ay nit ñàkk ci seen liggéey ay njaboot daal di ciy tàqalikoo ba faw ndakaaru daal di ñàkk juróom fukki milliards bés bu yàlla sàkk saa bu ni atte Ousmane Sonko te lii lépp nag bugaan naan kenn teguñu ko kurul président bu ñu am boo xam ne dafa jàppe yoonu réewam mën naa taqal Ousmane Sonko te naan Serigne Saliou Gueye mani la wax ko ne doo taskatu xibaar day tooñ ko la fi mu ne kay dañ koo tegu gët bëggoon koo saax-saaxee bëgg cee jaare moom Serigne Saliou dafay déranger régime bi ndax nag engagement ak wax dëgg gi nga xam ne ci la nekk te moo ne day Serigne Saliou ci liggéeyam la nekk ak waxum dëgg yéene kaay bi naan maan ñaareelu retour de parquet bu Serigne Saliou Gueye ni ki démb la waxtu woowu l'info yéene kaay naan maan Idrissa Seck day ma bi moom idi naan américain yi daw farlu ji réewum Sénégal toog ci wetam ndax leen seetaanee lambaay daal di ñaaw las yéene kaay naan man nu yàq ca bitim réew Sidiki Kaba Karim Fofana day ña ngi koy daal di defar fas yéene nag image u Sénégal ba nu yàq ci bitim réew ñu daal di koy yeesalaat sursoi naan man son Sonko waxtu woow ma ngay waajal karawaanam nguurug Sénégal ngéem bu ba dëgër di ko xaar Abdou Karim Fofana ki turbine yéene kaay naan la ma ko mën a xamal moom moo di Ousmane Sonko na xam ne yoon moom duñu nangu ko jël gëtt ci mim réew sursu a naan man ka yor communication bu gouvernement bi Abdou Karim Fofana naan la ma jaaxal mooy ndax Ousmane Sonko nag buggul caxat-caxatee boppam wasaare ko ñu daal di koy jàpp jàppee ko nag ci mbedd meeg salfaañe réew mi gënal ko nag jàppee ko wàllu mu yol Le Quotidien Le Quotidien naan man fi mu ne day nguur gee takku ba dëgër Antoine Félix jom ci yéene kaay bi naan ma ne la façon ba ni manifester moo soppeeku ci réewum Sénégal yoon la nag taxawaay gii nguur gi daal di koy am ci mim réew Moussa Sow njiital kocher ci la mandat yéene kaay naan Ousmane Sonko dama ne la woote na fi mi ngir ñu xeexoo yàgg na ay bêtises la ay wax la yoo xam ne ñàkkub war ma moo ko lal Sénégal nag benn bopp la deesu ko xar ñaar ñaata nit la ñu atte ci réew mi ñaata personnalité it ñoo jàll ci tirbinal bu ndakaaru dara mësta am ci réew mi justice nag moom dina def liggéeyam ci nii mbaa ci naa réew mi ko dajee mel ni ku naan kon ku ko weddi da nga demul démb ci assemblée nationale daanaka saaga yaa fa ëpp liggéey bi l'enquête ko dajee naan kon daanaka ci ring daal la ñu nekkoon débat yoo xam ne tàng na jër diggante Antoine Félix Diome ak député bi jokkoor ma jog jokkoor leel am ca waxtu woowu source a naan maan tey daal sonko dina def caravane am ñibbisi si ndakaaru le point yéen a kaay naan maan ana Mamour Diallo mën doon tudd ca mbir ma keroog daal mbir yi leer na ne Mamour taqewul laalewul Walf Quotidien naan en tout cas Pastef fi mu ne day seen yitte war na nekk xoolaat beneen candidat ndax Ousmane Sonko boo mayul du bokk le mandat yéen kaay naan maan bu ñuy di taaxuraan ñii di liggéey SNHLM fi mu mi ngi fexe ba digganteem ak askanuk Sénégal confiance di kat ci yaakaar daal di ciy judduwaat Diagne Sy Mbengue directeur général général bu SNHLM fas yéene doxal la président Macky Sall bëgg ci moom moom président Macky Sall Moustapha Ba ministre du budget ne dafa bëgg sénégalais yëpp am kër te du métti ci ñoom Abdoulaye Seydou Sow ministre ne SNHLM lu toll ci téeméer ci junni ci logement sociaux war na ko taxawal tribune yéene kaay naan maan ak lu mën a am Bougane Gueye Dany nee na daa ñu ubbi dialogue national bi ci mim réew dialogue national lañ ko tuddee te bu nu dialoguee ba noppi élection présidentielle yi daañu ko dàq ci diirub ñaari at ci réewum Sénégal te naan ku ci àndul fekk si ma gëm sa bopp jébbale ci ñaari million carton rouge yi nga xam ne askan wi la ñu bëgg ñu ràngoo ko wan bitim réew ak réew mi ne bëgguñu benn yoon sàll sampaat ndëndëm ci mim réew ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm marcheur ñoo xam ne dañuy dox ak seen tànk wutali Popenguine mm. et loolu également c'est c'est c'est important ñu souligner ko et Popenguine rée ji euh, c'est le José de Tambacounda mooy nekk à l'honneur monseigneur Paul Abel Mamba Diatta mi jiite diocèse bu Tambacounda moom mooy célébrer meesu dimanche bi et chorale yi nekk ci Tamba yëpp dañuy regroupé wu ñoom ñëpp ñoom ñooy wooy mees bi donc c'est le diocèse de Tamba qui sera à l'honneur mais peut-être nga may ma juste par rapport à ça euh, ma rendre hommage beneen évêque muy monseigneur André Gueye mhm. bu Thiès démb la am 10 ans à la tête du diocèse de Thiès et loolu également c'était une autre célébration mm-hmm. boo xam ne def na ko mm-hmm. l'évêque qui est vraiment également un homme de développement un parce que yemul rek peut-être ci tette mbooloo mi ci wàllu ngëm mais mhm. également day jël ay initiative yoo xam ne day dundal Josel bi ci wàllu religion mais ci wàllu koom ci wàllu social ci wàllu humanitaire ak yeneen yeneen yoo xam ne vraiment mu ngi koy liggéey ñuy ñaan à travers sa personne également yàlla jàppale tous les évêques yi nga xam ne ñoo fi ne parce que également yemu rek ci wàllu catholique mais ils sont en relation avec toute la communauté musulmane et ça c'est important parce que jour Popenguine également El Hadj Ibou Sakho moom day organiser à côté euh, côté Ndayane je crois xawma euh, à côté voilà donc ñaari événement yi dañuy euh, mm-hmm. daje mm-hmm. loolu également beneen xéewal la boo xam ne yàlla may na ko Sénégal ñaari rakk abasa yi voilà foofu nag ren ji il ñu dem ziyaare ji sunu maam Mariama nag <laughs> foofu ñu dem Popenguine xanaa Simon je crois tey la genèse l'histoire de waaw waaw lu bëri loo xam ne xamuñu ko woon euh, merci quand même mais peut-être beneen aspect rek laa ci bëgg a jël boo xam ne ne euh, moom nañ doon diffuser sànq te élément bi jàllul mooy waa REVA tey liggéey bu am solo bu ñuy mm-hmm. def bi parce que muy màggal Touba di Tiwaawoon ak lu mënti xew da nga leen di gis fu ne dañuy jóge dajaloo mm-hmm. def ay équipe jalonné pratiquement euh, itinéraire bi yëpp pour képp koo xam ne panne nga ñu mën la fekk si dimbali la mm. dépanne la et puis gratuitement ak seen i matériel bon malgré leur maigre moyen ak yu ñu am ñëw pour taxaw askan bi donc loolu day wane toute l'importance bi nga xam ne tey jii nii ñoom les artisans am nañ ko ba tax dayoo bi nga xam ne war nañ leen ko dox maa ngi doon liir conseil des ministres euh, bële passé mais président oui a mm. donné des injonctions pour que ñu gën a mën a jàppale surtout les artisans même le projet bi nga xam ne ñu ngi ko amal à Diamniadio te ñu ko war a amal à mm-hmm. l'échelle régionale tey bu ñu ko defee à Mbour pratiquement liy xew Popenguine les artisans de Mbour dinañ mën a dajaloo ak ay matériels yu mucc ayib yu mhm. yu dëppook jamono war a mën a dimbali oto yi ëllëg bu dee Touba les artisans de Touba automobilistes yi dinañ mën a dajaloo ñoom it mën a dimbali ñu ñi donc mhm. loolu dafa am solo pour les artisans ñu gën leen mën a dimbali gën leen a may doole mhm. ma doole ci juste euh, ñaari baat parce que ren ji innovation bi wala particularité bi mooy xam nga dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses Popenguine da cee bokk et am mag boo xam à 100 pour cent mais pèlerinage bi dina ko mën a accueillir quand même. donc mu mm. nekk infrastructure bu yaatu bu rafet boo xam ne vraiment ñu ngi koy def et ça accueille des des milliers et des milliers de de de de pèlerins. l' autre aspect également c' est la présence des grandes familles religieuses de ce pays Touba Tivaouane euh, Laayeen yi ñoom ñëpp dañ fay yónnee délégation boo xam ne dañuy ñëw assister messe bi ba mu jeex après dem réception ba avec l' autorité gouvernementale. Mm-hmm. autour justement des des évêques Sénégal ñoom tam ñu échanger au cours d' une nag Sénégal. ñun ñëpp benn lañu. lu am solo ñëpp benn lañ dialogue islamo-chrétien ni ñu koy faral di waxee fanweer ak ñett ci ay journalistes yu daanaka nag jàng nañu ba jot seen i lijaasa moo xam bu rajo télévision presse écrite loolee seen lijaasa yi démb leen ko jébbal mu di juróom fukkeelu promotion bu centre bu CESTI ñu tuddee ko Mame Less Camara cérémonie bi ne daanaka démb woon euh, ñu daan say dara jal sargal Jean Meïssa Diop moom la ñu tuddee woon promotion boobee Abdoul Aziz Sow Dabakh ñu jébbal leen seeni raaya gannaaw ñetti atu tàggatu ay at yu ñu leen tàggat ci lépp lu jëm ci wàllub journalisme lu wundu métier bi ak li ko laaj. dafa nekk métier boo xamante ne également yombul jàng ñetti at. ñu jox la sa diplôme c'est vraiment une fierté. di yaakaar nag def carrière bi nga xamante ne si moo gën ci ñun te mu méngoog euh, compétence ak xam-xam yi nga xam ne jàng nañ ko. promotion bile toll ci fanweer ak ñett étudiants. fukk ak ñett ñi taamu presse écrite fukk ak ñaar yi ñi taamu télévision juróom ñett yi def rajo. vous devez rester professionnel. na ngeen doon ñu professionnel bañ a fàtte ni journalisme métier la bisalloog yenn ci ay charte sori lépp luy improvisation. ne souffre ñile ñu sàkk ci ñoom ñu sàlloog bépp valeur bu seen parrain sàlloo woon di Jean Meissa Diop. le un professionnel accompli. may saw ku la woon rigueur itam ci moom la fekk baax doonul woon café lu jëm ci valeur journaliste yi la. ñu yor seeni raaya ñi leen ne pare nañu rekk. ngir taxaw temm ci lépp lu liggéey bi laaj. di xibaar yu dëggu te wóor. acca ñetti téeméer si la ñu toll tàggat yaram la di ay athlètes yu nga xam ne dañ bawoo ci fukk ak juróom-ñaar ci ay réew yu wuute joxante dig daanaka ëllëg euh, sa euh, annexe ba stade euh, maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio mu di dixième édition bu grand meeting de Dakar Sadio Aboubacar dem na nag sekk waxtaan El Hadji Bara Thiam vice président fédération sénégalaise bu athlétisme ñu rëpp ñu teewlu bii le reportage. fédération sénégalaise bu athlétisme war a dalal ay athlètes yu bëri jóge ci lu juróom-ñaar war daje fii ci samedi bi ci compétition bu ñu duppee meeting de Dakar. dafa nekk meeting boo xam ne day mobiliser xaalis bu bari. Mhm. donc état ki mënuñ ko teg ci wéer ci état kese faw ñun ñu jóg wuti ay partenaires moo tax ñuy arrêté woon ko après Covid bi aussi ñëw ànd ak moom moo tax depuis daaw. lañ ko reprendre ñi toog ne meeting bi waruñu ko bàyyi parce que Sénégal tolloon na ci niveau boo xam ne euh, mënuñu ko bàyyi. loolee nekk ab occasion pour mën a xam dëgg-dëgg niveau athlète yu Sénégal yi. El Hadj Bara Thiam. jongante bii nag xale yi bokkuñ ci mag ñi la. mag ñi la donc am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi France basé fa parce que ñun li ëpp ci ñu suñuy élite nekkuñu biir Sénégal parce que xam nga Sénégal des fois infrastructure day des donc fële la ñuy ëppee euh, compétence ak jumtuwaay yoo xam ne dinañ mën a entraîner moo tax bu ñu leen soxlaa dañ leen a indi. mu nekk ndaje boo xam ne tiitalul dara organisateurs yi ndax it ñoom ñi ngi bëgg a miin stade annex bu jam Diamniadio. dañuy liggéey ak mairie yi nga xam ne dañoo jege foofu muy Rufisque Sangalkam euh, Kër Ndiaye Lo donc mairie yi nekk foofu jam Diamniadio mairie yi nekk foofu bind nañ leen ñoom ñëpp. acca mu ngoog suba lay doon sa stade annexe bu euh, maître Abdoulaye bu jam naa joon dem seetaani rek waaw dégg naa daaw rek nga mënoon. vrai que ah, meeting bi na am ba daaw la nga waaw xaw naa ci waaw mënoon naa ci dara rek. <laughs> foofu ma mënoon ci laa wax niñ ma tuddee woon ba ma nekkee xale. sinon dañ may kaañoo après. nan la woon waaw nañu tuddee rek non non en off. <laughs> lu am solo la bu ngoog jaajëf Simon rendez-vous bu kon ci kanam. incha allah ci Zik FM 89.7 jotaayu xibaar yi Mamadou Fofana. c'est le charme de deux mégas. <laughs> bu ne am na fi.